VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pipes et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 24. VIP People DAL, fallait l'EP Mais attends, bu ñu ñëwee ci wàllu Ousmane Sonko ak wàllu mambay Mbaye Niang dañu gis récemment euh, avocat wu mambay Niang yi def euh, benn point de presse ni ñoom dañuy déposer benn euh, dañuy def dañuy def appel en fait mais dañu gis également waa Sonko yi surtout seen avocat yi bi ñuy répliquer da ngay sentir benn tiitaange bu xaw a nekk si ñoom mel luy xaw a woote wala yooyu mbir moomu noo ko gisee. xam nga mooy li nga wax rek da nga wax ci wàllum Ousmane Sonko. Mm-hmm. wax ci wàllum mambay

Mm-hmm. mécanisme boobu dafa am ay stratégie moo xam politique moo xam géologique moo xam euh, stratégique mm-hmm. donc institution yooyu nekk fii maanaam di rédiger pour képp koo xamante ni jalgati nga yoon yoon teg la ci yoon mm-hmm. maanaam soo jalgatee maanaam soo wàccee yoon yoon teg la ci yoon dafa mel ni tey otoraay bu wàcc raay maanaam foog ñu tegaat ko ci raay bi oto bu wàcc tali foog ñu tegaat ko ci tali bi kon donc képp ku wàcc yoon yoon boobu dalay tegaat ci yoon diffamation diffamation bi ki du ku mhm. parce que opposant la leader politique tey mën nañu ne opposant bu radical Sénégal mais nag du opposant bi nga xam-xam Sénégal mhm. du opposant boo xamante yor Sénégal du opposant boo xamante Sénégal du opposant boo patriote comme ni ah bon mais nak xam nga dara soo ciy dugg dafay am stratégie de communication booy utiliser. xëy na nag dafa utiliser benn stratégie de communication boo xamante ni bi ci njëkk mooy victimisation. sénégalais mooy doon nit koo xamante ni mën na xëy di la saaga di la wax lu nekk mais bés boo victimiser woo rek mu yërëm la. Mmh. seetlu nañ ko fii ci kaawu Karim Wade bi ñuy Karim Wade je crois que sénégalais yëpp a meroon ñëpp ñëw ne Karim Wade dafa sàcc xaalis Sénégal ministre du terre ministre du ciel ministre nangam sangam nañ ko jàpp nañ ko jëli ji. Mhm. ñu jëli ji Karim Wade yóbbu. Mhm. bi ñu demee ba jugé Karim Wade ba ko sénégalais yi ñoom ñoo. solidaire encore dem jàppale Karim Wade yërëm ko. Mhm. mu comprendre loolu indi benn genre victimisation moom ci boppam le. l' opposant muy Ousmane Sonko indi benn victimisation ci boppam premièrement mi ngi ko indi ci biñ koy rajee impôt domaine. Mm-hmm. parce que moom moo ci biir direction pendant 15 ans dem ba ci biir bëgg ñu rajo ko ah mu joué ci ben jeu bo xamanteni muy divulguer ay secret mm-hmm. te fo dem amna secret sans limite bi tay amna ay secret yu fi nek mm-hmm. lo xamanteni xeyna yow jomb nga diko ko muy génne ay secret di génne secret pousse état au bout pour ñu dakh ko su ko défé mu né ñii kat dañ ma dakh donc ci biir lolu muy victimisation bo xamanteni ni indi na mu porter préjudice ben doomu sénégalais bu tuddu Mame Mbaye di ministre euh, du tourisme. mu toog en plein point de presse Andak ak ay naataangoom yu yeewi askan bi yeewi askan ay leader politique hmm. tey Khalifa Sall mi ngi fa euh, kii mu tudd Déthié Fall mi ngi fa Malick Gakou mi ngi fa Habib Sy mi ngi fa Aïda Mbodj mi ngi fa ay kàngam yoo xamante ay homme d'état la wax ay homme hmm. assurer état assurer lu ci état xam lan secret d'état xam lan diplomatie d'état ñooñu ñëpp a fa mu en plein point euh, de presse hmm. Ken laaju ko Mame Mbaye Niang kenn ko moom li mu doon def point de presse c'était pour défendre ay cause am wax ay bilan yàlla nattu ko mu dugg ci Mame Mbaye Niang ne Mame Mbaye moom Ousmane Sonko am na rapport IGE bi épinglé Mame Mbaye Niang que luubal lu toll ci vingt neuf milliards hmm. Ousmane Sonko moo ko wax ba pare mu teg ci mu ngi nii sama téléphone hmm. rapport baa ngi nii tak tak tak tak tak mu jël téléphone bi teg muy système de manipulation xam man tey su ma toogee ci télé ma ne diw lii épinglé na ko nangam lii ko épinglé mi ngi nii sama téléphone même su ma ko liirul yow mi toog di sa di ma seetaan civilement da nga am non kii li muy wax dëgg la parce que jël na téléphone bi hmm. alors que yorul dara ginnaaw loolu bi mu waxee loolu mambay ñaa sentir ni que dañ ko diffamé hmm. maanaam dañ ko tooñ mais mambay ñaa du fajal boppam du saaga mu dem ci yoon jébbal yoon affaire bi biñ ko jébbalee yoon dig moo njëkk convoqué Ousmane Sonko hmm. bi mu ko convoqué Ousmane Sonko làqatu dem amul ben militant bu ko yëg yow yëgoo ko. Mhm. presse bi kenn yëgoo ko kenn waxu ci. ba mu deme wuyu ji tay su amone rapport bobu ci téléphone su deme dik mu rapport bi jox ko wa dik mhm. je crois que tay procès bi do am fi parce que su génnee ni procès bo xamanteni bu rapportu product, bi nan épinglé na le nom de Mambay Mbaye Niang qui a détourné 29 milliards. Mhm. bés bu ko Ousmane Sonko tegaloon dik tay procès do am. ndaxte suñu ñu euh, procès verbal bi jox ko procureur procureur su xol day xam non liñ koy jiiñ kon Mame Mbaye Niang kaay nga ci sa plainte lañ koy wax. Mhm. donc loolu yëpp amul yoon war a def liggéeyam. diffamation nag c'est pas la première fois. Mhm. ñun ñii fi nekk ñëpp am nañu procès diffamation. Mhm. chaque jour ñu porté ñu plainte yóbbu ñu dañuy dem yóbbu suñuy preuve wala ñu condamné ñu loolu moo fi am. ci biir loolu bu mu amee. ñu def première. Euh, audition ñu convoqué Ousmane Sonko muy def fi ñàkk faydam yor ay balam di football ci buntu këram yooyu mmh. yëpp ñàkk fayda ci kilifa boo xamante ni da nga ne da nga ba aspirer à être un président nga tooñ nit ba pare nga ne yor nga ay preuve ñu woo la yow nga war a yàkkamti pour yóbbu ay preuve nga toog sa buntu kër di football ci football boobu ñu bëree waroon ci jàng ni que kii mi ngi leen di nax mi ngi dox seen biir maay ci jàppee ko yëfu guerrier jàppee ko yëfu héros mmh. ba yenn militants yi sax naan non bal bi moom foog ñu dem wuti ko dem jëndi ko dans quel sens dans quel bi fan la ñuy yóbbu c'est qui Ousmane Sonko c'est mmh. un citoyen sénégalais tout simplement d'accord voilà non damay eggali. Mm. parce que trois renvois À ma mm. deuxième audition mu wara dem. Mm. mu guen la veille ne dinaa dem wuy mais bala may wuyji dama bëgg sénégalais yeen ñep ngeen guen fekk si ma tribunal di woté wal Ah mais parce que audience publique c'est son droit aussi. non mais c'est pas à lui d'appeler les gens. toutes les tous les procès de diffamation c'est en flagrant délit c'est en public. bëgg da ngay mais il a appelé les sénégalais les sénégalais s'en fichent de Ousmane Sonko les sénégalais s'en fichent de Mame sénégalais pour nekk am na leneen looy lijjanti mhm. c'est juste benn source d'intimidation de manipulation woo sénégalais maanaam mi ngi yuuxu wàllu bi muy taxaw di accuser Mame Mbaye Niang dafa doon fëgg dënn di wanee ni que guerrier la biñ ko woowee dafa doon yuuxu wooy kaay leen kaay dimbale ma balaa ñu may jàpp loolu la wax mhm. ba pare mu bëgg a itinéraire bu muy jaar ku nekk xam na Ousmane Sonko du Tange Tandian Ousmane Sonko du Ousin

des biens et des Sénégalais police ñoom ñooy xool itinéraire bi gën a gaaw pour mu dem tribunal mu xëccoog ñoom ci biir xëccoog ñoom boobu mu bañ affaire bi yàgg ñu bëree yàgg fa plus de trois heures de temps mm-hmm. ñu toj vitre oto mm-hmm. exfiltré ko parce que jaxasoo woon na renseignement généraux ñoo mën a xam li fa nekk parce que dama wax wax lenn man toog naa ak ay nit ñoo xamante ni ci biir waxtaan ñu ne ma Sonko bañ naa ko benn bañ boo xamante ni bés bu ma ko jekkoon fenn su ma moon balu fetal dama koy dóor mu dee te ñooñu ànduñu ak Macky Sall ànduñu ak kenn ngir fitna bu mu teg Sénégal ak blocage bu mu leen di bloqué mais renseignement généraux su amee loolu yëpp ba ëllëg ak ci biir lu dal Ousmane Sonko. Mhm. nga xamante ne si seen kaw lay daal mais ñoom duñ jël seen préoccupation. li mhm. ñuy protéger Tange di protéger Macky Sall noonu la ñu war a protéger Ousmane Sonko exfiltrer Ousmane Sonko parce que yow moo leen ko may. Mhm. yóbbu yóbbu ko këram. troisième. renvoi renvoi Amath. bu commencé yuuxu wàllu encore. ci biir wàllu bi woote waa sénégalais yi mujjul egg tribunal ñu annulé ko ba ci quatrième bi biñ ko annulé foofu si la sorti yërëm la dem suma créé benn feebar boo xamante ni pour wut certificat médical un faux certificat médical parce que yéen ñëpp xam ngeen Ousmane Sonko dara jotu Sénégal yëpp xam nañu Ousmane Sonko dara jotu ko lacrymogène bi muy noyyi moom nga noyyi bi ngay dem reportage moom la Ngóone Saliou noyyi te teewut kenn si ñoom demu ci sal suma moom la journaliste yëpp noyyi ñëpp taxaw mu dem suma jël ay médecins yoo xamante ni dañu waatoon pour def seen liggéey ci yoon mu manipuler len parce que ce sont des faits militants mm-hmm. ñi naan consulté wuñu ko ñii naan defaluñu ko ah defaluñu ko ci ko xamanteni da nga aspirer nek jiite réew mi muy ay fen yo xamanteni yang koy teg ngeen baal ma ci wax mm-hmm. parce que lu safano deug fen la tay nga am ay militants yo xamanteni ni xam nañ yow yaa ngi fen non mais pour pour pour ñu mën xam ndax euh, limi wax deug la am du dëgg je pense que médecin yi ñoo habilité pour pour pour le dire en fait d'autant plus que euh, dossier médical am c'est secret donc euh, je ne vois pas pourquoi nga war a mën a toog nii nii day fen ci loolu quoi. waa xam nga yow danga wax sa xalaat. Mm-hmm. sa gis-gis nga wax. Mm-hmm. mais dëgg dafa am. Mm-hmm. ñun on des intellectuels dañu jàng kenn mu mënuñu dupe am ñu xam-xam ñu ñu ëpp xam-xam ñi ngi fii gën ñu jàng xëy na ñooñu dañoo choisir jël seen xam-xam teg ko fële jël naa fekk mu di ko indi ci plateau télévision yi ñoom la concerné ñun mi nga xamante ni APR intéressé ñu gëm sa bopp intéressé wuñu Euh, Pape Djibril Fall intéressé ñu Alassane Sall intéressé Macky Sall intéressé Ousmane Sonko ki intéressé Sénégal. Mhm. dëgg la jël taxaw mhm. mais mais mais de la même manière aussi tamit war nga mën ni. Euh, nit ko convoqué jarul tamit. police dem di barricade quartier bi aussi. ma wax la. Mhm. xam nga porteurs de voix ñuy journalistes war information ñun suñu rôle mooy jox askan bi information bu baax. on est complice de la manipulation tey ñu ci bëri ci journalistes yi ñu ci bëri ci site internet yi sont complices de manipulation. pour jox la benn complice de euh, boo xamante ni am na benn journaliste bu ko def. bi ñuy exfiltrer Ousmane Sonko ci otoom journaliste bi xamul luy exfiltrer. dafa taxaw yuuxu en plainte rek wooy ñu ngi koy arrêté arrêté nañ ko arrêté nañu Ousmane Sonko est-ce qu'on l'a arrêté. arrêté ak ça fait deux pourtant arrêté la wax am na koo xamante ne mi ngi dëkk Fongolimbi am na koo xamante ne mi ngi dëkk Tamba su déggee loolu la wax arrêté nañu Ousmane Sonko et pourtant biñ ñu Ousmane Sonko expulse ko yóbbu ko ba ci këram. waroon na mën a soit ah man mii ma waxoon arrêté ndekete du arrêté dañ ko expulser pour sa sécurité et pourtant il ne l'a pas fait mmh. cette journaliste mmh. donc journaliste rôle moy bala ngay ubbi sa lamine di wax mmh. da lay leer ne ci li ngay wax xam nga ko en pleine manifestation essayer de se rapprocher des gens et essayer de poser des questions pour donner la bonne information pour ne pas manipuler les gens tay suma la né dara jotu ko Ousmane Sonko fiñ ko expulser ci otom rond-point Mermoz la yëkkati ko di dugal ci oto bi takk ko ñëpp ci teg seen bët. yarga si ñëw indi lu muy sotti sotti ko. après la ñu gis ci ay vidéo ci biir oto Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko di pompel produit masque masque affaire bi dugg ko muy ñoom lu ah mais loolu ñun vinaigre lañ ko jàppee en fait non vinaigre dañ ko defee ci biir oto bi vinaigre kenn du ko defee ci biir oto parce que bi ngi ci biir oto tëj ay veeram yëkkati ay veeram bu leen dofloo nit ñi dofu leen ay nit ngeen da ngeen am xel vinaigre balaa ñu la koy def da ngay génn lacrymogène laal la nga jël vinaigre def ah mais doon préparé en cas en fait mais balaa ngay préparé wu naan lacrymogène yow yaa ngi ci sa biir oto tëju police ñëwagul dara laalagu la nga jël say chauffeur jox leen sa téléphone préparé leen ne filmer leen pour que après nga am loo communiquer c'est-à-dire que loolu mooy système de manipulation bu Ousmane Sonko def te yéen du ngeen ci bàyyi xel mu summi ay dàllam lu tax ñeneen ñëpp takk masque moom takkul masque bi nekkat la su kaa ñëpp takk masque ñu jox ko ko mu génn yar ga takkal si yéreem ñu dugal ko ci oto ji GIGN yóbbu ko tribunal Ousmane Sonko egg tribunal taxaw biir tribunal dox plus de trente minutes wax li muy wax saafanteel li muy saafanteel dem ba ci Mame Mbaye kàddu yu mu ko bëggoon wax mu wax ko dara jotu ko dara jotu ko mm. ñu jékki-jékki avocat yi xam na ni xam nga yaa ko wax léegi sa biir question nga ne avocat yi dafa mel ni ñoo xamante ni mhm. amatuñu pour seen dernière euh, conférence de presse bi avocat yi musuñu am musuñu am issue mhm. ñoom ci seen bopp xam nañu Ousmane Sonko lu muy wax du dëgg mhm. mais un avocat tu ne perds de l'argent moom ay honneur am lay défendre en plus tey avocat boo xamante ni yaa ngi défendre Ousmane Sonko ça veut dire que day yokk sa buzz day yokk sa médiatisation yenn avocat yu bëri ñi ngi dem di défendre Ousmane Sonko c'est pas le dossier de Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko dafa bëri coow donc sama tur dina feeñ dinañ ma dégg partout à travers le monde nga dem jóge fa nga ne danga am malaise ñu yóbbu la hôpital sami boobu sami bi ñu la yóbbu moo la génnee 17h nga toog sa kër toog ba vingt vingt une heure nga ne nañ la wool ambulance xanaa ki soxla ambulance ca dëgg-dëgg mm. dañ la war a teg ci civière waaye doo door sa capiche jox ndànk dugal say loxo sa poche. mais est-ce que yow temps da nga ko gis mu dox quand même aussi. parce que da ngeen gis ko mu toog mais les vidéos sont là. Ousmane Sonko moo génn buntu këram. xam nga moom lu muy def day filmer. te parfois day fàttali ci lu muy filmer am na erreur yoo xamante ne mi ngi ci. ca ba muy génn buntu këram moo dox dugg ci ambulance bi ambulance bi duggal ak moom Sami. Sami waay ba mu demee Sami ba mu demee Sami. mais kenn benn médecin mun la ne Ousmane Sonko lii moo ko jot. amul kenn ku la ko mën a wax. disons la vérité. saa waay gis nañ fi procès Karim Wade Euh, Bibo Bourgui. Mhm. teg nañ ko ci civière indi ko tribunal. Bibo Bourgui teg nañ ko ci tribunal indi ko tribunal. Mhm. te ñooñu xamoon nañu dañu feebar. ba tey nangul nañ ko ko su ko neexee mu toog sami. d'accord hôtel la. Mhm. yow su la neexoon tey nga sonn nit ñi bëgg la sonal. nga dem sami. mais li ma jaaxal li ma jaaxal dama la wax benn wax boo xamante ni man la dara jotu ko. yow xam nga ni dara jotu ko. lacrymogène ba mu noyyi moom laa noyyi. technique la ak stratégie toog biir famille boobu pour suy génn am certificat médical boo xamante ni balaa la 30 du ko permettre pour mu dem tribunal pour mu am lu mu justifié li ko njëkk weer mooy liquide bu mu teg bi muy def point de presse yow téye malade yaa ngi ci biir hôpital talal sa jàmm yaram nga ñëw toog ci lalu hôpital doo sa capuche nga ne da ngay nax nit ñi. maa ngi leen di nuyu si seen jàmmi yaram yéen ñi fi taxaw yëpp nangam gis naa taxawaay bi mais la résistance xeex bi nañ ko def xeex bi c'est ridicule

pour yow nga sauver sa honneur ñu nga ñu teg ko ci deux cent millions pourquoi nga bëgg defaat appel pour bëgg a yokkaat loolu bay soxla ay milliards lan la en fait ndax dafa am benn rancune bu nekk si ginnaaw bu ci nekk wala dafa affaire xam du diffamation kese nga peut-être yow kenn mosul laa tuumaal mhm. moom mi ñu tuumaal ah, mais deux moom mi ñu tuumaal mhm. ci kanamu àdduna te ki ko tuumaal lu ko ndaw le Ousmane Sonko la dafa dem partout à travers le monde mhm. est-ce que xam nga tuumaal boobu tey suñu laa fi loon euh, turu Mame Mbaye Niang mën na topp Mame Mbaye Niang à vie waxuma sax ci état du Sénégal Mame Mbaye mën na pare ci état du Sénégal dem ci ay. mais on l'a lavé en fait. dem ci ay dem ci ay ONG dem ci ay ONU. xam nga fen bu nekk ak ni mu toll noonu lañ lay daane. laas bind nañu Mame Mbaye Niang épinglé. Mm-hmm. Mm-hmm. mais laas ni mu toll ak journalam dix millions lañ leen amende. six mois mm-hmm. Ousmane Sonko bi mu waxee. xam nga dañ dem jëli ji avocat français. Juan Branco. dem jëli ji Saad Larifou. Saad Larifou beneen avocat boo xamante ne mooy l'opposant comorien comorien bi bu Azali. moom moo exilé wu nekk fa Paris.

peut-être yéen musuñu len difamé man yag na fi tok ñi may sosal di ma wax yenn wax tok na fi en pleine emission de 2STV nit wote na Tange mo sàcc sama nangam aduna yeb diko deg est est-ce que xam ngeen est-ce que xam ngeen loolu lu muy def ci nit loolu milliard sax mënu ko dindi instant bobu li muy def ci yow ak aduna nit ñi ñu la doon xolé kon donc du yow yaay naan est-ce que ëpp na wala ëppul mam bay Niang kesse mom moy tok xol ni ka honneuram lan lañ koy laver bala ngeen di wax ndax ëpp na wala ëppul lu tax waxu leen ki nga xamante ni moo toog point point de presse. toog di fenal nit ne am naa am naa li la épinglé te amoo ko. te yow ngay liggéey impôt domaine def fa 15 ans nga xam lan mooy rapport IGE ak lan mooy rapport IGF nga xam rapport mooy lan te rapport amul. rapport amul yéen ñëpp yéen ngi wax rapport mais. rapport amul rapport amul mais mais mais temps bi ñu bëggee gën a. gën a am am na dara déglu ma rek balaa muy am foog ñu jàngal nit

rapport bobu su ñëwee ñu jox ko ñi ko war saytu yëpp xool ko rapport définitif soog a am té loolu yëpp amul. amul d'accord ba légui ñu ngi naan rapport. bu ba léegi ñu ngi naan mm-hmm. vingt milliards amul benn sénégalais bu lu mëna a li 1 milliard bo xamante ni VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pips et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 2 4 VIP people daal fa lay lépp di leere